برغم من مالكم لن مولين دال با لا ترجون لله وقارا امولين ركبه تي الله سبحانه وتعالى بالله دي فاجو ني ركبه تي الله سبحانه وتعالى لي لين ديك بن واي مو واخ لو اوب لو اوب نيت ني ديكو ديك ني نوبي ميم بو ني ري نان ري تي دك ما ديك يو بول سوغو تي لو لو منوت بول سوغو تي لو اتلوت واي نا يالا رك تخ نغ سوغو بن واي بو تاخاو ني ديو يالا نيكو داغي كاتشي واخ كو مو ديكو لو كو وارال موي دا boo seetloo ñu bari ci ñun mbokk yi moo moo moo jeex moo jeex wallahi li nga dégg nit wax loo njaaxum boo xam jiit naa moos yow mi ko dégg te waxoo ca dara borom bu lay xisaab dana la ci buggal ndax am na kàddu yoo xam ni ëpp naa dégg am na ñoo xam ne buñ ko déggoon loola mën naa nekk de déggu àllaaxira muy ay kàddu yu ñaaw yu ñàkk teggin yu ñàkk xorma ñu koy jëmale ci borom bi subhanahu wa taala te ñuy jàngale pas-pas ñi ngi noppi kenn waxu te amal na kenn kuñ fi tuddoon ci koo xam ne ak kilifa la bu ay nit yàlla xam ne lu gën a néew li ñuy wax suñu borom bu ñu ko ko waxaloon rek ak dëgg te ñi ngi koy waxal ay nit ñu leen défendre kenn ñu leen leen ko ñu waxal ko suñu borom way gëm yàlla yi ni kenn kenn ñi moo la wax ñaata gis ñu ne ci rajo wala télévision di wax ay wax boo waxee da ngay jur fitna ban fitna ban fitna ban fitna moo gën a rëy yëkkati ay kàddu yu ñaaw di jëmale ci borom bi subhanahu wa taala ak ni mu màggee ak ni mu fooree yàlla nga xam ne waroon naa àgg ci sa xol foo xam ne wallahi seen xool asamaan teg ni mu màggee rek war na laa jooyloo yàlla ak ni mu màggee nga xool ko ak li nga xam ne moom la def ci xeeti yërmande adduna bi yëpp soxla ndox ñu xam ni xel koo fi woo ku nekk sëgg sikki rek la man comme yow ñaan yàlla yàlla mu ni ma taw ba mu tooy fandur ila aathaari rahmatillah xoolal jeexintali yërmande yàlla yi kayfa yuxyi al arda baada mawtiha xoolal sunu borom yusawirukum fi l arxaami kayfa yashaa bi nga nekkee sa biiru yaay moo lay melal di la wëlbati ba nga mel nam bëgg moom suñu borom xoolal suñu borom subhanahu wa taala yumsiku samawati wal arda an tazula yàlla mu ne asamaan maa ni ko nettee ak suuf si waraatu ci seen kaw wala zalata suñu borom mu ne bu rëccoon ba wàll in amsakahuma min ahadin min baadi amul kenn ku ko mën a téye te borom bi mi ngi ko téye subhanahu wa taala xalaatal ci or ma jooju nga xam ne moom nga war a jox borom bi subhanahu wa taala ngay lekk muy reesal ngay naan muy reetal ngay moy muy mu lay muñal yenente yàlla mu ne la ahada akbara min allah amul ko gën a mën a muñ borom bi subhanahu wa taala xoolal ñaata moy yoo xam ni boo ko suñ borom jàppee woon tey doo fanaan walaw yuaxidu allahu annaasa bima kasabu ma taraka ala dahriha min daaba suñu borom mu ne bu mu leen doon jàppee li ngeen di def kenn des ci kaw suuf mbokk yi nañu gën a góorgóorluwaat nañu bàyyiwaat xel suñu borom suñu borom mu ne maanakum lan moo leen tax maalakum lan moo leen dal ba laa tarjuuna lillahi waqaara ba amu leen benn orma ci yàlla subhanahu wa taala wa qad xalaqakum atwaara te borom bi mu ni fi ngeen jaar cycle cycle yi ngeen jaar borom bi mu ni maa leen fa jaarale alam taraw xanaa xoolu leen kayfa xalaqa allahu sabaa samaawatin tibaaqa juróom-ñaari asamaan yu tegaloo dara teyewu ko yàlla mu ni xanaa xoolu leen ah sunu borom mu ni xanaa xoolu leen ni yàlla yéeg yéegalee asamaan وجعل القمر فيهن نورا لم يربي لي الفركوت برم من ما كنت وجعل الشمس سراجا دمت في تانغل ما كنت تدف والله أنبتكم من الأرض نباتا جنت جنين من ما كنت تخل ثم يعيدكم فيها كدين ثم اللجف ويخرجكم إخراجا كدين جنين اللجف مكين لن يبايا أخير سنو برام سبحانه وتعالى لن يتلف سنفو جنين سنو برام والله كدين سنو yor nga ci ay bakkaar loo xam ne bu ko borom bi jéggalul subhanahu wa taala di nga yàqu te borom bi mi ngi tàllal ay loxoom ci guddi ak bëccëg di sàkk ci nit ñi tuub hal min taibin mustaghfirin kan mooy tuub kan mooy jéggalu dajeeg borom boo xamante ni moom dafa bëgg sax di jéggalee yàlla mu ne yow mi nga xam ne nga def ay bakkaar ba yàqu ya ayyuha alladina asrafu ala anfusihim def nga ba yàqu ba yaakaar ne yow moom dootoo si sunu borom ni bul décourager ak ci ñëwal la taqnatu min rahmatillah bul décourager inna allah yaghfiru dhunuba jami'a bolem bakkar yi bu ngeen ko tuubee ma jéggal leen